salaamaaleykum mbokk internet dakarnet point com comme ni ñu koy defee saa su nekk di wër ah, ndogu gaay yi tey ñu ngi fii tey Pikine ak gaay yi fii nii ñu ne dañuy def ndogu jël ko ah, jox ko ah, yóbbu ko ci daara ji yóbbu ko ci ñoo xam ne tamit waa koñ bi après tali bi ñoo xam ne dañuy liggéey ba après circulation fekk leen ci yoon bi ñu jox leen ñu ndogu gaay yi ñoom ñooy def loolu lu dul lekk lu dul ànd ak ñoom ñu yóbbu ndog yi ci daara ji après ñu jël quelques réaction gaay yi tumaan ñu dem sëñ bi ñu leen di ñu delloo nuyu ak ziar bu baax. gis waa koñ bi dëkkandoo yi def geste bu rafet bi jër ay ndogu ah, di ko ah, di ko jox jaamu yàlla yi ñu ne amoon benn xel bu rafet na dañ koy añ ci jàkka ji ñoo doon laaj tey ah, lan nga mën a wax ci ñoom. waaw lii moom di ko rafetlu rek moom ñëpp ay dëkkandoor lañ dëkkandoor yu baax yu yàgg nag depuis xale ba léegi macha allah di ko rafet bu baax nee na yàlla yokk leen yàlla na yàlla yokk mën-mën gi yokk chaque at rek ngeen di ko def muy gën a rafet rek. yokk xéewal yeeg sutura yi yokk wërsëg wi defal ñu jàmm àddina àllaaxira rek macha allah di ko rafet ñu gis tamit ah, nit woor ba ngoon jot ah, nga jël ndogu jox ko ko loolu noonu lan la ci lislaam wax. waaw ah, moom lu baax la moom wax nañ ne benn tibb rek boo ko joxee ab jullit moo gën nga tabax ay jàkka yu baree baree bari tabax ay junnee jàkk benn tibb boo jox benn mburu boo jox doomu aadama mu ndogoo ko rek moo moo ëpp tiyaabu fuuf kon daal ñu ngi si ñaanal bu baax rek yàlla yàlla nangul yàlla na yàlla barkeel leen yàlla yàlla yokk leen ba ngeen yëg ko jaay rasul sallallahu ci yow benn mbégte mi ah, jël ndog yi di ko préparé di ko waajal jox ah, jaamu yàlla yi nga xam ni ah, dañoo woor ba ngoon jot ñii laaj initiative ci biir nii nan nan nga ko rafetloo waaw initiative bi mooy sunu xale góor waa ko ñoom ñoo ko commencé au fait après ñun tamit euh, ñu ñëw jàppale leen ci euh, mu nekk initiative bu rafet moo xamante ne première fois la mais ñaan nañu yàlla mu nekk ay ati at yu bari waaw parce que dañu dëkk ak fii eh, ay taalibe tamit ñu ñuy eh, lu ñu xew lañu ñëw ñoo ñuy wàcceel kaamil lépp donc yoon la eh, ci koor gi ñu togg ndogu tamit delloo leen ko bëggale leen ko waaw waaw mu ne ñu gis ñu tamit ngeen bàyyi seen lépp suba ba léegi ñoo jàpp ci ndog yi. waaw waaw parce que euh, waaw moo ñu war moo ñu war parce que xam nga ñun ñu ngi sant yàlla macha allah mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci biti te xamuñu ñoom waaw tey fan la ñuy ndogoo wala donc lii daal lu ci mënti amit euh, lu baax rek nga ci mën a jëlee waaw. boo ci déggul sax merci xol bu sedd lee c'est sûr yàlla dina la ko fay parce que jox nit mu lekk yàlla moo ko gërëm yàlla moo ko santaane moo ko digle donc waa di ko def dafay yoon même bu dul koor sax ci lañ war a dëkk waaw. gis ne nga ne yaag sa càmmiñ yéen ànd def ko te lan ngay wax sa yi nga ànd ak ñoom ci bés bi. waaw waaw nag <laughs> waaw loolu moom <laughs> xale yu góor moom suñuy càmmiñ lañ waa suñuy càmmiñ lañ koñ bi moom macha allah koñ bu neex la parce que mag ak ndaw ñu ñëpp àndandoo maase te tamit comme nii rek kenn mooy soobu dara ñëpp fekk ko si jàppale ko te voilà kontaan naa si ñoom sama càmmiñ yi <laughs> lakkal lañ ba mais ñu baax lañ ñu baax lañ parce que lii moom na initiative bi foog nga am xol bu baax nekk ni te xalaat ñeneen ñi pour di ko mën a mën a mën a def waa ma leen di ñaanal balaa déwén waaw ñoom ñëpp yéeg ci seen 4 x di gaare di wàccee ndogu yi ñu koy séddale waaw première édition bi yàlla nekk après dem ba xale yi suñu doom yi sët yi di ko continuer waaw yéen tamit ñu kontaan ci yéen waa si. waaw xanaa di dellu sant yàlla gërëm yonante bi bu baax a baax di sant gaay yi fi teew yëpp ndaxte initiative bi boo ko gisee euh, Arona moo ko waral Arona ja moom moo ñu euh, moo am idée bi dégg nga informé ñëpp nañ ci ñëw jàpp. parce que boo gisee weeru koor moom nit ku nekk da nga war di dawal gën a yokk sa yërmande euh, delloo sa bopp sa borom bu ko defee daal nga mën a dimbali jaam yàlla yi ci lépp li nga xamante ni daal euh, yaa xam ci domaine boo mënti nekk ñun nag lii jot nañ fee dajale lu bari ron jot na fee dajale euh, baax baax yëpp danga da nga ko fas yéene distribuer bu ko defee nit ku nekk mën cee njëriñu daal waaw ngir ñu yokkul suñu diggante ak suñu borom mu gën a jekk daal looloo ko waral tamit initiative mu rafet loolu macha allah lan ngay waxati jeunes yi nekk ci koñ war a def lu rafet lii nii. waaw li exemple la exemple boo xamante ne jeune bu nekk war na ko suivre tout tànk yu ndaw yu nekk tamit war na ko suivre ndax boo nekkee ci koñ boobu bon oh, la li la li lay xaar moo mooy mooy que ni nga wone exemple baax ba nga xamante ne génération bu ci topp dina la mën a soutenir dina la mën a topp dina mën a xool ci yow dina mën a roy ci yow bu ko defee ñu mën a def loolu mën a continuer chaque année muy mën di am looloo ko waral daal bu ko defee daal ñii daal alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax. kay ñu gis na yow bokk ak gars yi ak diine mais gis nañ yow yaa ci gën a sonn euh, ñu lay laaj tey loolu noonu bi ko gars yi def ban mbégte nga ci am ba ànd ak moom. waaw gars yi xam nga ñoo bokk benn koñ xam nga ñu juddandoo depuis xale ba léegi xam nga mu doon affaire bu nice waaw man xam nga chrétien la mais damay ñëw jàpp si affaire bi xam nga waaw parce que affaire bu nice la quoi mën naa ne affaire bi buñ ko taxawalee motul sax même pas un mois benn deux waxtaan ne pourquoi pas ñu defar benn ndogu xam nga comme première édition la xam nga rek gars jubo juboo si kàddu affaire yooyu noonu xam nga si lañ taxawalee li affaire bu nice la quoi. gis nga ànd ak gars yi dem ak ñoom ci euh, ci kii ci taalibe yi joxe fa ndogu ñu jóge waat fa ñu demaat ci jàkka ji tamit ñu gisaat la ci nga ànd ak ñoom ñoom yóbbu fa ndogu loolu tey la la la def. waaw loolu moom daf mooy touché quoi parce que c'est la première fois mooy def lii te jëlee naa si ay jàngat yu bari. dañuy ñaan xam nga di ko gën a fekkee di ko gën a def waaw daay édition yu bari te ñaan nañ biir di ñëw incha allah bu ko yàlla defee sax mun nañ pour pas ñu def ay xar xam nga mooy la gën ko yaatal ko deuxième édition bi quoi. waaw nga may ma fiy tuuti nag euh, balaa maa wax sax nan lañ jëlee initiative bi at préparation beeg yooyu noonu parce que nit ki moom yaakaar naa loo mënta commencé rek da nga koy commencé bisimilahi rahmaani rahim fas yéene ko jeexal tamit si alhamdulilahi rabbil alamin te su ma nee bisimilah rahmaani rahim dama naan taxawaay bi parce que dama naan koñ bi lii duñ ne fi gulit quoi yàgg na fee am xëy na daf dafay dafay gëjoon rek tey ñun jeunesse bi tey ñun ñu ñëwaat dekkilaat ko ndax dama naan tey lii initiative bu rafet la di wax ni xol yi sedd nañu te dara xewagul ndax yaakaar naa ni lii dafa dafa dafa doon loo xam ne maanaam lu rafet la te tey tamit su may sant damay sant gars yi waaye tey damay sant jigéen ñi bu baax de plus parce que dama naan tey lépp ñoom la ndax xëy nañu tey la matin bàyyi seen yitte yi bàyyi seen yëpp ñëw taxaw fi depuis boobu ba léegi bàyyiwuñu waaw di sant tamit koñ bi ndax mënoon naa ne kër gu ne mënoon nañ ko fee defee kon bu ñu bàyyee kër yëpp tamit ñëw si kër gi tamit yaakaar naa ne ñoom it ñu may ñu lépp may nañ ñu accès jox lépp ndax ñëpp xam nañ ne koor dafa metti kenn bëgg si biir ñëpp dañ siy bëgg a noppalu ko dañ siy bëgg dallu dañ siy bëgg a wu tey ñu ngi ñëw déranger leen di di def biir def lu ñu neex daal def lu ñu saf te dama naan kër gi sax yàggee nañu loolu daal ñoom yàggee nañoo yaatal ba ñëpp xaj seen ginnaaw kon dama naan affaire bi daal mën naa ne xol bu sedd ndax xol bu seddee sax wax ji du bari ah ndax fu mu ne nii sama xol moo sedd ba mënuma wax ndax xol bu seddee moom wax ji moom jarul muy bëri waa di wax ni kii bi bañ ko jëlee diir bu gàtt la ay ñoŋ moor la ay ñoŋ Ron Paco Daniel ak Omar ak gaay dañ toog rek waxtaan ni rek sama néeg ñuy ataaya rek ñu ne waa mais pourquoi pas ñun waruñoo mën a joxe ay ndogu gars yi ne ah ñëpp ñëpp apprécié ne waaw après gars yi jékki-jékki rek mu nice ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàpp daal mu nice rek waaw. parce que yéen jël ndog yi di tas ko gaal ci talibeeg ci koñ bi. waaw affaire moom yemul si koñ bi dawalkatu fas yeeg dawalkatu oto yeeg ñuy dox ak dawalkatu vélo yeeg pour ñëpp la parce que weer bi weeru jaamu yàlla la weeru xéwal la weeru lépp la kon yaakaar naa ne dañ koo def pour ñëpp yemalewuñu ko si suñu bopp bu doon ñun ak ñun rek ñun jarul ñu koy def ndax ku nekk mën nga toog sa kër ndogu. mais dañ koo def pour jaamu yàlla yi ndax am na ñoo xam ne heure ndogu du leen fekk seen biir kër yi te dañuy soxla ku leen taxawu kon yaakaar naa dañ ko def pour jaamu yàlla yi at ku dul jaamu yàlla at doomu aadama yi ndax tey ku mel ne dañ dani loowa ngi nii ku mel ni keneen ak keneen a ngi nii bokkuñu religion te moo si gën a sonn loxoom dugg na si Euh, liggéey bi dugg na si kon affaire bi yamatul sax si affaire de diine affaire de bokk ndey bokk baay la kon ñun ñëpp affaire de doomu aadama lañu kon di wax ne affaire bi contentement rek lañ si yëg ak mbette daal am nañ si mbette daal Abdou Khoudia am nañ si mbette bu baax a baax a baax. waaw initiative bi macha allah macha allah alhamdulilah euh, li nga xam te ne que dañ koy waral di def chaque année mi mi première édition donc euh, ñu consulter en tant que ñu suñu biir ñu xam ni première fois bi nan ko nan ko def rek ngir yàlla quoi. Euh, laajuñu kenn dara xam nga ku si nekk ak li nga am rek nga indi quoi ak ñu boole suñu doole di ko defee ay statut ba nu jour matul sax une semaine ba nga programmé te lii ne insbi nii bon ëpp nu loxo lu ma waxoon gars rek dañu def te yàlla tax rek yàlla mooy fay. bi nga commencé yàggul mais gis nañu ñëpp ñëw ñu jàpp ñi seen ah, seen seen jigéen ñeek ak waa koñ bi ñëpp génn nañ jàpp ci. Euh, wallahi insbi nii moom daanaka sax ñun suñu jigéen ñi xaw a mere ndax nee na lu tax waxuñu leen ko c'était pas prévu li nga xam ni que pour tout le monde quoi dañ ko doon concerté pour première édition rek pour def ko ngir yàlla parce que benn doñu tàndarma bi ñuy joxe rek xamu yu yàlla ñaata ñaata ñaata jumaale ak ñaata jàqale ak ñani leen yàlla du fay kon loolu loolu rek dong rek mënu tax a jug waaw macha allah euh, xam naa xam naa ni gars yi daan comprendre pour bu ëllëgee daan ko gën a yaatal incha allah. Euh, en fait dama naa ne loolu noonu mbégte bu rëy la kontaante plus loolu. Euh, yoonu yiw la parce que nit ki tey nit ki def dara xam nga euh, yéene si ay mbokkam ñii génne seen wërsëg lu ñu am dugal ko si xam ñu togg def loo xam ne maanaam ndogu boo xam ne ndogu ala doome la ndogu ndogu bu neex xam mu nekk loo xam ne loolu lu rafet la initiative bi moom bëgg naa moom muy am euh, chaque année ñu koy def xam mu nekk loo xam ne lu lu lu lu lu am lu am kéemaane lay doon quoi si àdduna aussi tamit ñu gis na affaire bi yamul rek ci affaire euh, euh, diine l'islam gis naa sax ay chrétiens yoo xam ne dañoo ñëw di jàpp ci bés bi. waaw waaw da ngay dégg ne nee nañ daal nit daal booy def lu baax nee na bu la si kenn jiitu parce que dëkkandoo dafa am solo quoi ak nooy mënti mel koo mënti dëkkal si àdduna xam nga na ngeen yéeneente jàmm xama yeneente partage partagé ñëpp xam nga loolu noonu xam nga day day jur loo xam ne mooy naan ne pays de pays laïque quoi Sénégal boo déggee ñaa naan une pays loolu mooy une pays maanaam une partage xam nga ñëpp xam nga bokkandoo xàccandoo dóorandoo